Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa Grup Arahma ñu ngi leen di nuyu di fas di dikkaat ak yeen ci seen tomb bu am solo bi nga xamné da fay wax ci importance xam-xam ak ngëneelu xam-xam ak njëriñ ñi nga xamné xam-xam am nako ta mbokk mi ko taxawé di Cheikh amin Diop mu jot ci amal ñaari dars ñu fas di dikk ak yeen ci sun bindum ñettel bi inshallah kon bismillah Cheikh Muhammad Amin. ñu ngi lay tewlu assalamualaikum warahmatullahi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 jataay bi njëkk waxoon nañ ci ngëneelu xam-xam def ci ay faram-fàcce jataay bi ci toppoon tamit defoon nañ ci ab tënk ci wàllu importance ak njariñ lim am moom xam-xam tey jii nag automatiquement li ñu war a jël moom mooy teggin yi nga xamante ni sàkku xam-xam daf ko am lu mënta ñàkk la donte tamit teggin yooyu euh, mawdu la mbind mu yaatu la waaye dinañ ci jël xam naa euh, amaana tey duñ ko jeexal dinañ ci ñëwaat ndax dafa am ci teggin yoo xamante ni dafa aju ci xam-xam bi ngay sàkku ñu koy tuddee aadaabu talabul ilm am ci teggin yoo xamante ni dafa aju ci taalibul ilmi mooy ki koy sàkku ci boppam waaw kon am na ci teggin yoo xamante ni sa digganteeg la xam-xam bi ngay sàkku am ci teggin yoo xamante ni yow mi koy sàkku yow yaa war a melokaanoo noonu waaye am ci teggin yoo xamante ni tamit mi ngi aju sa digganteeg ci ki nga koy sàkkoo te mooy sa sëriñ bi lay sax ki lay sawe njariñ parce que sëriñ buñ ko waxee mooy kii sawe njariñ loolu mooy cosaan kon ak yeneen yoo xamante ne aju na ci moo tax borom xam-xam yi ndeysaan taalif ci ay téere yu bëree bari bëri jaami bayaanul ilmi fadli bu ibnu abdul bar xamante ne ci loolu rek lay wax mooy li nga xamante ne mooy sàkku xam-xam ak yeneen téere yoo xamante ne yu dul yooyu la al faqih al mutafaqih ah bu al al al khatib al xatib al baghdadi ak yeneen ak yeneen téere yoo xam yu bari la ba tey ji sax borom xam ne taalif nañ ay téere tuddee ko aadaabu taalib al ilm kon incha allah taala dinañ ci jukki tey lenn li nga xamante ni moo aju ci xam-xam bi ngay sàkku bu ko defee incha allah taala jotaay yi di ñëw ñu jël nag ci li nga xamante ni moo aju ci yeneen mbir yi ci incha allah tomb bu yaatu dinañ ci xool li nga xamante ni moo ci ëpp njariñ ñu jéem koo ndar képp wala ñu tënku ko mën a jàll ci leneen incha allah taala kon mbokk yi li nga xamante ni moo ci njëkk tey comme niñ ko waxee mooy teggin yi nga xamante ni ñoo aju ci xam-xam bi ngay sàkku lii ci njëkk. te ëpp ci solo te dara mënu koo remplacer mooy xam-xam bi ngay sàkku nag wax dëgg yàlla muy man muy yow muy keneen ñu sàkku ko te yàlla rekk tax ñu sàkku ko te yàlla rekk tax maam an naqsida bi talabina al ilm shar'i wajha allahi subhanahu wa taala loolu lu mënta ñàkk ndax sàkku xam-xam jaamu yàlla la te jaamu yàlla dee su ko nangu lu dul ñaari condition dañ ci am bi ci njëkk mooy al ixlaas nga sellal loolu nag mbirum xol la moo tax kenn mënu ko xam kenn mënta ni kenn mënta taxaw tey nit ki yow li ngay def ah, sell na wala sellul déedéet waaw loolu moom kenn mënu ko kenn mënu koo xam ndax mbirum xol la yàlla rek ko xam laa al amalu yaat moo tax jëf yëpp ñu war ko def te yàlla rek tax buñ ko def ngir ma sàmba ngir ma dem bul ko def ngir ni ñi wax ni macha allah wala déet déedéet amul solo buñ ko waxee falilahi alhamdu buñ ko waxul ne yàlla xamal ne yow yàlla taxoon ngay def moo tax doo bàyyi mbir ngir nit ñi waaye tamit doo ko def ngir nit ñi kon da def ngir yàlla waaye booy bàyyi tamit yàlla rek tax kon teggin bi ci ki nga xamante ne mooy sakk xam-xam ci xam bi muy sàkku mu sàkku ko te yàlla rek tax xam nga jiitu woon nañu wax la al imam ahmad bi ñuy wax ci njariñu xam-xam nee woon na al ilmu laa yaadiluhu shay'un xam-xam dara yamut ak moom liman saxat niyatuhu ci ki nga xamante ni yéeneem dafa sell ñu laaj ko al imam noonu lan lay mën a nekkee imam ahmad rahimahullah mu ni bu fekkee ni dafa yéene yëkkati réer ci boppam ndax li cosaan mooy doomu aadama dafa réer wallahu axrajakum min butuuni ummahatikum laa taalamuuna shay'an la yàlla wax yàlla mu leen génne seen biir yaay xamoo leen dara dara dara moo tax ñëw fii di wax naan dañoo juddwaale xam-xam ak yëpp ay tappale rek dara wéru ci waaw juddwaale xam-xam amut innama al ilmu bi taallum loolu la yonent bi alayhi salatu wasalaam wax kon la ñu bëgg a wax mooy xam-xam bi ngay sàkku moo xam lu tuuti la moo xam lu néew la lu bari la ah faaw nag nga sàkku tayal rek tax kon imam ahmad dafa ni li taxoon jaam bi di sàkku xam-xam te war a sellal mooy dafa xam ni moom dafa réer dafa war a xam ni moom ku réer la yàlla man innahu kaana valuman jahulan doomu aadama ku réer la waaye tooñkat la kon nag day sàkku xam-xam ngir yëkkati réer boobu ci kawam waaye bu ko yëkkatee pare nag ci kawam mu daan koy yëkkati ci keneen moo tax dina ñëw ni xam-xam dafa am ay étape bi ñu njëkk mooy nga sàkku xam-xam jëfe ko waaye woote jëmale ci muñ lor yi nga xamante ni ñoo ñoom ñoo la ci fekk kon jëfe bi meññit la moo tax boo yëkkatee réer sa bopp na nga ko yëkkati ci keneen kon yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax mu ni wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu ddin ba aaya ba jeex kon li ñu doon wax sànq mooy xam-xam sàkku ko jaamu yàlla te jaamu yàlla des ko nangu lu dul ñaari condition bi ci njëkk mooy al ixlaas wax nañ ko bi ci topp mooy al mutaabaa ngay topp yonent bi alayhi salatu wasalaam ca na mu doon defee jaamu yàlla googu ndax loolu mënta ñàkk la loolu mooy al bayaan bi yàlla wax ni wa anzalna ilayka dhikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim waaw dañoo wàccee ci al quran al dhikr ngir nga leeralal ko nit ñi moo tax quran kenn ko déggil sa dégginu bopp faaw nag yonent bi moo la koy leeral ci sunnaam kon li di sax xam xam-xam jaamu yàlla la moo yàlla mu ni woon wa umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu ddin hunafa kon digeluma len nit ñëpp ci dug ay ñëpp yonentee ñëpp digeluñ len luddul ñu jaamu yàlla way jaamu yàlla go nañ ko ko sellalal nak mukhlisina lahu ddin waaw nañ ko def ta mom rek mu waaw ñëw na ci sahih bukhari muslim ci hadith umar ibn khattab bi ñu xon sank moy innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawaa jëf yépp mi ngi aju ci yéene wa innama li kulli mri maa nit ku nekk la nga yéene rek la la yàlla di fay loolu nag yàlla rek ko xam moo tax ñu war a sellal yéene yi moo tax sufiyaanu thawri doon wax ni maa aalajtu cheyan ashadda alayya min niyati li annaha tataqallabu alay waaw amul dara loo xamante ni sonnoon naa ci di xeex ak moom di ko vérifier lu toll ni wala lu raw ni li may li nga xamante ne lay vérifier sama sama yéene parce que tataqallab day wëlbatiku man nga dugg ci mbir yàlla rek tax waaye nga dem ba ci biir pañatu bakkan dugg ci wala mbirum seytaan yàlla na ci yàlla musal moo tax dañ dafa bokk julli bi li mu war a ñaan ci biir jullee mooy yàlla nañu yàlla musal ci lu yàq jëf اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة كن اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين موتا جول دافور دي ñaan lool da ngay gorgol en même temps ngay ñaan yalla ndax ñaan yalla tamit jaamu yalla wa idha sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كنت من نجي نيان يالا مو مسل نجي لو يق جف وي دمبلي نيو تي سني جف نيو دف كموم دونغ متخ مبرم سبحانه وتعالى في بوكونا تي لين خمانتني مو ورا تخ نيو غنى غور غور لو تي الإخلاص موي سلل جفي تلو من تنياك لنك ndax yalla nangu ko yalla nañu yalla may al ikhlas mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadiis bu yéeme yàlla ñu yàlla musal ci li nga xamante ni moom mooy ngistal ak déggtal fi saxiix imaam muslim ci xadiis abi hurayra mu ni dégg na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ki ñuy njëkk atte ëllëg yowm alqiyaama inna awwala annaasi yuqdaa yowm alqiyaama alayhi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ba xadiis bi jeex ki ñuy njëkk atte ëllëg yowmal qiyam mooy ki nga xamante ne dafa deewoon ci xeex ci yoonu yàlla subhanahu taala jihaat ci li feeñ ci nit ñi moo tax dama la mbirum ixlaas yàlla rek ko xam ma mën nañ gis nit mu dee ci li nga xamante ne mooy ci jihaat ci li feeñ waaye nag ëllëg yowmal qiyam yàlla di ko mbugal lu tax parce que da doon xeex ngir ñu wax ni kii jàmbaar la waaye xeexul woon te yàlla rek tax moo tax waxoon nañ la ba ñuy leeral anwaawu shahada xeex wala dee ci yoonu yàlla subhanahu taala shahada mooy lan ñu ne ñetti façon la dafa am shahidu dunia am shahidu dunia wal axira am shahidu axira shahidul axira mooy koo xamante ni comme ni ko yonent bi alayhi salaam waxee ni koo xamante ni dee na ci lakk-lakk wala ci li nga xamante ne mooy dara màbb ci kawam wala ci géej ci ndox wala yu ni mel wala ci lakk-lakk kooku de wala koo xamante ni sax da doon am doom far matu far génn àdduna kon yooyu kooku day am attey li nga xamante ni mooy shahidul axira mooy amul attey shahid dunia mooy dañ koy defal li ñuy defal lépp koo xamante ne ku génn àdduna sangu ko suul ko jullee ko ñaanal ko yàlla defar ko waaye ëllëg yamal qiyaam dina am li nga xamante ni mooy darajay ki nga xamante ni moo dee ci yoon yàlla subhana taala kooku mooy shahidul axira la ñuy tuddee shahidu dunia yàlla nañ ci yàlla musal mooy lii nii mooy nga dee fii ci xeex ci jihaat ci yoon yàlla ci li feeñ nit ñi gis ne yow macha allah da nga doon xeex ngir yàlla waaye ëllëg yàlla la teg ay mbugal loolu moo ñëw ci xadis bi nañ wax benen bi doo ñëw ci hadith bi bi ci top moy shahidu dunya wal akhirah lol de moy li jara ñaan moy nga de ci yoonu yàlla fi way la taxon ngay xex yàlla rek tax ëlëk yàlla fay la ay daraja yu kawe aljana yàlla mu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata gis nga amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farixina bima aataahum allah min fadl yàlla ñala bolé ci ñom waaw kon ñi wax deug yàlla ñoy shahidu dunya wal akhirah waa ji nga xamante ne yonent bi alayhi nee na da xeex ci yoonu yàlla waaye nag yàlla taxut mais ci li feeñ dañoo gis ni moom day xeex te yàlla tax ëllëg yow a xam dañ koy taaj yàlla subhaanahu wa taala moo gën a xam la mu koy laaj waaye dafa buur bu maandu la koy laaj muy tontu ndax amul kenn koo xamante ëllëg ku dul yàlla dina wax ak yow ba nga jàpp ne yow dong la bind di laaj ngay yàlla di ko laaj mu naan ko no qaataltu fiika hatta stashhadtu mu ni ko ñu ko kazabta walakinnaka qaatalta li an yuqaal jari faqad qiil yàlla nañ ci yàlla musal niki noonu tamit xam-xam c'est la jàngale bi ngay jàngale c'est la même bu fekkee nit ñee tax nga koy def ëllëg yomal xam yàlla nañ la laaj waaw lan moo koy def nga ni ko dama ko def te yàlla tax ñu la déet kazabta da ngay fen waxoo dëgg da doon jàngale ngir ñu wax ni kii jàmbaar la <laughs> yàlla nañ ci yàlla musal da nga doon jàngale ngir ñu wax ni kii di yee macha allah ñu ni ko kazabta waaye nag waa ji kon dañ nan ko fen nga ولكنك قاتلت لان يقال جري ها دا نغا دون خيخ غير نيو خاني كي كو نيمي لا جامبار لا موني فقد قيل وخيف نكو سي ادنا جيخنا يالا دادي ديغلي ني دات كوي خيتش كانامام جمالي كو فيغا خامتاني موي سفر ولا عياذ بالله صحيح الامام مسلم حديث ابي هريره موتاخ كيغا خامتاني ديف ميت تسللوكو واخ دغ يال اي تكو يو ميت نيو نيو سي موم اك ليغا خامتاني موي اي مبوغل يالا نتي يالا مسل كينن كيغا خامتاني dañ koy mbugal tamit mooy ki nga xamante ne da doon jàng xam-xam ak di jàng alquran di ko jàngale ngir ñu wax ni kii jàmbaar la yàlla tamit da koy laaj c'est la même mu ni ko woon taallamtu l ilma wa allamtuhu wa qaratu fiika alquran ñu ni ko kasabta damaa jàngoon di jàngale te yow rek yaa taxaw yàlla ñu ni ko dangay ngay fen waaye danga ngaa jàngoon ngir ñu wax ni waa ji de aalim la kii boroom xam-xam la da ngaa jàngoon ngir ñu wax ni kii xaari la kii jàngkat alxuraan la loolu wax na ko ci àdduna moo tax man la nit ñi bu leen sóoraale parce que a mënaluñ la dara mënuñ la dàqal lor mënuñ la xëccal njariñ waaw yow daal defal li ngay def te yàlla tax li ngay def bu yàlla taxee yàlla subhaana moo koy barkeel waaw yàlla moo koy barkeel euh, moo tax ixlaas dafa nekk lu yéeme yàlla ñu yàlla may ixlaas musal ci lu yàq jëf kon euh, nit ki nag day lu kéem kàttanam incha allah am na fu muy toll yàlla subhaana taala moo tàggatalal ay cëram comme ni mu ko waxee woon rek ci xadis ba waaw wala yazaalu abdi yataqarrab ilay bin nawafil xata uhibba fa ida ahbabtu kuntu samau alladi yasmau bi am jeex kon bu la yàlla defalee tawfiq wax dëgg yàlla defal la ak jàppandal ak dëppale mooy yu mel noonu yàlla na la ci musal yàlla nañ ci yàlla musal musal ci mboolem jullit kon nañuy def te yàlla rek tax di tàggat suñu bopp kon tamit ni ki noonu ki nga xam doon jàng xam-xam di jàngal alxuraan dañ naan ko da ngay fen noonu la ñëwee kadabta waaw fii amul lu ñu fi rafetal moom waxoo dëgg waaw parce que da nga doon jàng ngir ñu wax ne kii jànkal la kii borom xam waxee fa na ko ci ko fi nga xamante mooy safara yàlla nañ ci yàlla xamante ne ñetteel mooy koo xam yàlla dafa yaataloon wërsëgam yàlla da koo defaloon xéwal ubbil ko bunti wërsëg waaw mu jël alal jooj nag di ko joxe ngir ñu wax ne kii nii wax dëgg yàlla ab joxekat la loolu waxeef na ko ci àdduna jeex na waxeef na ne kii ku tabe la nangam nangam kon tey niñ ko gisee ni ñoo xamante ne dañuy joxe rek bëgg ñu ku leen tuddul sax ñu mer kuy joxe ta yàlla tax yaakaar naa da nga ciy sax bañ a feeñ bu ko defee kon ñett ñi nga xamante ni mooy ki nga xam doon xeex ci yoonu yàlla ak ki doon jàngale xam-xam ah ak ki doon jàng alxuraan ak ki nga xamante ni moo doon finance yoonu yàlla kon ñii ëllëg ñoom la ñuy njëkk àtt yawmal xiyaam dugal leen tàbbal leen safara lu tax parce que lañ doon def yàlla taxul yàlla nañ ci yàlla musal. waaw mbokk yi bokk na ci ba tey xam naa sax fi la ñuy yem incha allah ndax li ñu joxoon ci waxtu jeex na dañoo xaw a tardé tey mooy bokk na ci li nga xamante ni moy tax ñu gën a góorgóorlu di sonn di jaayante suñu bakkan ngir am ikhlas ta def ta yàlla rek tax kon bu ñuy def na yàlla rek tax bu ñuy bàyyi ta yàlla rek tax moy hadith abi hurayra bi nga xamanteni al imam abu daud genné nako ak ibnu majah ci sanad bo xamanteni ni bu rafet la ci hadith abi hurayra yonent bi mu alayhi salatu wassalam من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة لا إله إلا يلا نشال المسلم نحن كيب كساك خم خم بو خم انتيني دن كو ورساك تيال رك تخموي خم خم الشريعة بي ندخ دن كو ورساك نغير تجي جسك ورير وي جند تميد جامو يالي لول موتا نيوكي ساك دو لنين دن كو ساك ادلغي ورنان ديدت دي. moo tax foofu tamit masala bu jëral leer la borom xam tudd nañ ko nit ki jàng par exemple tey pour am ay shahada wala yu ni mel ay diplôme ndax loolu day dàqu li dàqoo wut ak kon mën nga am ixlaas sa jubluwaay nekk am ngërëmal borom bi waaye lee nag nekk ñëw ñëw nekk loo xam day topp mais du nekk jubluwaay bi bu nekkee jubluwaay bi rek mooy wàcc nga yoon bi kon wax dëgg yàlla kiy jàngale tey par exemple ñu koy fay mu dem si kër yi di jàngale par exemple ñu koy fay loolu dara nekku ci waaye yow sa jubluwaay mooy gindi jaami waaye loolu lu mënta ñàkk la bu ko defee kon foofu tamit masala la boo xam ne bu jar a bàyyi xel la kon lay jubluwaay bi al qasd dafa am am lu ñuy tuddee at tabaa kon kiy jàng tey par exemple bëgg am ay shahada ay diplôme dem eggali jàngam ci beneen réew kooku wax dëgg yàlla nekkul day jàng ngir diplôme boobu mais diplôme boobu moyen la te charia tak dàq am am terewul kenn nga teg say matuwaay ngir am ay moyen yoo xam ne da nga mën a yeggale li nga bëgg sa vie bu ko defee kon xam-xam bu ñuy sàkku te yàlla rek tax ñu koy sàkku képp koo xam daf ko sàkku laa yata'alam illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya waye yow dara taxul nga sàkk ko ludul dul poñetum àdduna yonent bi alayhi salam ni lam yajid arfa al janna ay riha yen ëllëg yama xiyam do xéñcu li nga xamante moy mooy aljanna yàlla nañ ci yàlla musal kon da nga gis ni lii ab tekkula bo boo xamante ne bu metti la ci ñi nga xamante ni ñoom la tax ñuy sàkku xam-xam yàlla taxul mais dañu bëgg ñu ni ki borom xam-xam la wala bëgg li nga xamante moy diirante ay mbag wala yu ni mel dedet kon loolu lu jar a xel la kon fi liñ ci déggéré moy al ikhlas lu mënta ñak la kon yàlla ñu yàlla may li nga xamante moy moy al ikhlas waaw ta charte la tamit ngir ñu nangu jëf bu mënti doon même bépp jëf bu sax ni jaamu yàlla la faaw nak nit ki sellal ko ngir yàlla mën ko nangu ñaareelu charte mooy mu topp ci yonent bi saydina muhammad alayhi salaatu wasalaam ca nam ko defee woon ñaari charte yàlla tudd na ko ci jeexantal sootul kahf fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahadan kon ñu ngi yem foofu incha allah ba jotaay bi di ñëw mu defal ñu al ixlaas waaye musaluñ ci lu yàqu jëf wallahu wa alam